xam nga lan moo la yàq xam nga lan mooy sa problème Ndeye Gueye sa problème mooy da ngay dugg loo xamante si nii sa yónneeku ci après nga naan ay mm. sama jëkkër lii yëg sama jëkkër buggul coow sama jëkkër nangam mm. doo dugg lu sa yónneeku Ndeye ngir yàlla Ndeye Ndiaye Banda Ndiaye bi lu siy sa yoon. non defal nànk aada. waaw mais loo ciy waxee ay Basirou Gueye yooyu ay ay ay Zouz. waaw mais yow yow xam nga yow jëloo vidéo Ndeye Ndiaye Banda yaa dugal ko. waaw mais man daal Ndeye Gueye jaaxal nga ma quoi te buñ la waxee nga ne sama jëkkër bëggul coow sama jëkkër lii. waaw mais waaw mais déglu ma ma wax la. waaw mais dama ni xam nga yow jëloo benn vidéo Ndeye Ndiaye baax na yaa tas ko yow. man daal Ndeye Gueye daal man man jaaxal nga ma trop. non non non defal ndànk defal ndànk man su may wax man je parle en commun de cause man foofu laay waxee pour nit ñi ñu bàyyi. waaw baax na um par. dama bëgg dama bëgg. ma bëgg ñu Sénégal am na justice. waaw justice Sénégal may ñaan suñu ministre de l'Intérieur Antoine papa Bassirou Gueye li il faut mu wax ci. il que am naa yaakaar ni Sénégal xarañte nañu xarañte boo xamante ni tey ku dugal vidéo nit yàq ko. ñu topp ko bu mu sës ba xam kan la il faut ñu ñaan autorité yi loolu di ko ñaan Antoine Félix Diome yàlla jënd Seydina Mouhamed di ko ñaan suma papa Bassirou Gueye procureur de la République du Sénégal ñu ngi lay ñaan loolu il faut nga toppal ñu lii ñuy def nii di yàq nit ñi di yàq doomu jàmbur di di ay vidéo jàmbur di ko dugal di jël téléphone jàmbur di capturer ay vidéo di ko envoyé nit pour ñu yàq nit comprendre nga il faut ñu topp kaa yooyu di xool ñi koy def lan lépp ci suuf bi billaay wallaay te xoolal bu ñu toppee kii def loolu dinañ billaay bu ci jàppee kenn ba tëj ko kenn kenn ko fa su ma xam du jeex xam naa parce que si amu xam xam naa ko loolu billaay dafa jeex parce que am na yoo xamante ni day jaay suñu association bi la man bañ na ko ba ñaari rek la parce que boo ko laaj day jaay man rek la daan fëcc boo ko laajee kan aussi bi la ndey bi lay wax ndey bi lay wax tous doon ndey bi parce que am na yoo xamante ni day jaay suñu ko man bañ na ko ba yaay rek la parce que boo ko laajee day jaay man rek la daan fëcc boo ko laajee kan aussi bi la ndey bi lay wax ndey bi lay wax tous doon ndey bi suma rakk la suma kër daan nekk moom Cheikh Gueye ñoo doon ànd ci papam artiste la mu bëgg a yàq avenir xale yi mu ne Sénégal xaw ma am xamatuma man comprendre mais yàlla nañu yàlla dolli sa bopp yàlla nañu xam ne moom moom yàlla nañu daal di am si vraiment métti na sax moom. message bi jaay ko yow sant aussi dina ko kii kii merci parce que yow tamit da nga porteur de voix donc Sénégal gars yi dañu bàyyi xel ne sutura dafa bokk suñu ñu làmbee Sénégal ba ñu fàttaliku ne seen tubaab fii la dëkk Alaaji Maalik réew dañu bàyyi yenn affaire réseaux sociaux a bon waaye benn instant baax na mais boo ko bonal la rek voilà ah. dañu mën bu baax a baax merci beaucoup merci beaucoup